moo tax xam nga ne lay conseil parce que man du ma wax ak ñoom ñi may waxal moom mooy le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye seen 53 milliards ba ne tey dinañ allergie ne moom mooy dund bi nañu sarax ngir yàlla ak yonent bi rek nañ ko booleeg ay suivi ndax am nañ ay boutiquiers du dëgër bopp yoo xamante ne am ay naar yu nekk ci fóor yoo xam ne yu wow bopp yoo xamante ne am ay association de consommateurs ñu dëgër fit yoo xamante ne

foog ñu am ñoo xamante ne foog ñu leen di accompagner di jël crevage bi di firi rek di bàcc ku ci koo xamante ne nanguwul wàcc prime nga tëj loo ko li nga xamante ne moom mooy boutique am ñu jàll ci leneen ba keroog mu koy nangu parce que nag il faut le Sénégal pour nga ñu mun koo defar barke yàlla il faut que Bassirou Diomaye Faye de fer il faudrait que mu nekk un dictateur du bon terme nag waxuma la dictateur bu rayee ko tëjee waxuma la loolu mais dictateur boo xamante ne day forcer nit ñi ñuy ñuy plier wu ci décision yi nga xam ne jël na ko surtout ci lu jëm ci li xamante ne moom mooy allégé dund sénégalais lambda bi fa euh, Penda boo xoolee dans la sous-région Sénégal moo gën a cher location moo gën a dund penda Sénégal moo gën a cher li nga xamante ne ah, moom mooy niveau de vie te pourtant lu bëri ci Sénégal lay jaar dem Mali lu bëri Sénégal lay jaar dem Mauritanie lu bëri Sénégal mais Sénégal a gën a cher lépp ndax lan hmm. dañoo am ñoo xamante ni une partie de la population di wane seen bopp dañoo toog ci ay poste hmm. depuis 1950 ba léegi ñoo nekk ci ay syndicats yoo xam ne duñ fa génn hmm. en euh, complicité avec l'État ñuy teg euh, askan wi loo xamante ne attañu ko loolu nag moo doy yi ma ne gis nga Bassirou Diomaye Faye ji lii mu jël ci décision na ko jàpp fulla ak fayda ñii di ree nag naan ñetti dërëm ak ñetti dërëm ñoom ñoom ñoo ko tal waaye ñun moom dañoo békk pa fa ba kii nu mu tërati euh, mami mami waaw suñu xol yaa ngi feex wàcce sa benn loxo bi ndax sa pose dafa dañ alors mami même question waaw da ngaa dugal ko. si kii ko ku laa dëkk. tey moom man li ma jaaxal Ulay avant émission da naan ah man léegi. bàyyi naa léegi damaa si ulay daal bu toog man ulay yow la piqué nii lii moom du laay duut sama doxalin waaye yal na yàlla guddal sa fan <laughs> tabarki sëriñ Bamba yaa ngi may yëngal nag <laughs> te bëggumaa yëngu ndax tey sama yaram dafa yëngatuwul du tout alors mais euh, Penda ji li nga may waaja laaj te ma bëgg a anticiper ndax ulay damaa duut pikiir ma ne ko jërëjëf xam nga réew mi lu fi manqué mhm. waxkatu dëgg mhm. xam lu ñuy considéré waxkatu dëgg mhm. ni ku far xam nga ku far nan lañ lay considéré. Mm-hmm. ni koo yaakaar koo xam ne dañ koo jënd. dëgg la ni ku ñu jënd xam nga nan lañ lay def. Mm-hmm. dañ lay tuumaal. buñ la tuumaalee ba noppi xam nga nuñ def. Mm-hmm. dañ lay sosal buñ la sosalee. man da waaw yow de ne nii da ngaa bëri ay dossiers <laughs> dañ lay sosal de. nga ay dossiers ay baax maa ngi lay nuyu. mais euh, nañu féliciter. décision ak mesure yi nga xam ne lu président de la république. sous l'autorité de son premier ministre les administrations ainsi que les opérateurs économiques mm. euh, def nañu ko ci euh, conseil bi nga xamante ne moom lañ doon def tey ñeel wàllu dund gi ci baisse prix bi nga xam ne danu ko confirmer jëm ci dëwlin bi sucre cristallisé riz brisé bi farine de blé pain ak simon acte bi ñu njëkk a posé mooy ne au moins ils n'ont pas pris la décision de ñu tëju ci seen ay bureau jël ay décision imposé ko nit ñi dañoo impliquer les acteurs ne leen kaay leen ñu toog waxtaan ki ngay wax Amadou Gaye euh, moom ci jëmmi boppam maa ko dégg bi ñuy njëkk a annoncé prix mu ne ils n'ont pas été consultés tey ñoom ñu ngi woon ci biir consultation yi donc waxtaan ci li nga xam ne moo jëm ci wàññite njëkk li ñenn ñi dañoo jëfan jafandu woon ci prétexte tout ce gouvernement là avait promis aux Sénégalais que bu nu faloo dañuy wàññi dundu gi ñu téye ko def ko à la limite benn arme politique te aujourd'hui fi ñu toll nii mooy ne cette arme politique n'est plus valable pour le moment comme disait la voix dans Secret Story ce qui se passe pour le moment mooy ne annonce bu nu wax ni askan wi nooy yi leen tuuti ndax dañuy wàññi njëgu li nga xamante ne moom la sénégalais yi di gën di jëfandikoo pour alléger au moins le panier de la ménagère te c'est une mesure boo xam ne au-delà de la prendre fi ñuy réussir pari bi mooy application bi et fexe de telle sorte que que tout le monde appliqué wu ci prix yi nga xamante ne moom la ñu teg te gis nga peine de yi xam nga lu ma neex ci gouvernement bi gouvernement bi ay ministres yu souple la ñu am gaaw a def descente benn mën a sol tubéykat yi mën a sol carax man a wàcc te xam nga da nga yaakaar ne bu ñuy wàcc ñoom rekk ay ñëw pend mm-hmm. xool ma bu ñuy ñëw armée la ñuy indaale déedéet ah ñoom foowuñu nag mm-hmm. yow amul benn application bu ñu fi tàmbalee def boobu ba tey et l'armée jàpp ci mm-hmm. distribution de semences l'armée était là problème transport barki démb l'armée était là et li jëm ci consommation njëkk li ñàkk ko bañ a def bu mu la jaaxal boo gisee armée marché non parce que pour la toute bonne et simple raison que ce totalement vrai. Mhm. dafa am benn moment boo xam ne bu ñu ci tolloo pour man ce sens de sacrifice là ce n'est pas seulement l'État du Sénégal qui doit le faire elle a raison de dire que ñun ñëpp on doit mettre la main à la pâte pour que Sénégal gi ñu mën koo tabax ci ay jikko yu bees. Mhm. daf ci am ay attitudes yoo xamante ne dañu ko daan def da daan dox mais du dox ak ñii man gëm naa loolu ba keroog may gis le contraire. li nga xam ne jàpp naa ko ci ñoom mooy am na ñu détermination ci li ñuy def te wax dëgg yàlla ki la woo consulté la boole na la ci boppam. Mm-hmm. ki la boole ci boppam nag yow mënoo koo jam paaka ginnaaw ndax bu yàggee defoo ko ko moom askan wa ko séqal ngay def. association des consommateurs du Sénégal ki ko jiite jiite ko fi bopp ba léegi. nañu may wàccul ca peeluwul. ma a xumma mi jiite transporteur. Mm-hmm. boobu ba tey ma ko jiite wàccul ca peeluwul. transporteur a malgré que dañuy xale xale lu ay mag leen. Mhm. xanaa ñoom ci seen yi ñuy bokk. xanaa noom du ñu def ay congrès. moom ma jaaxal xanaa noom du ñu def ay élections nominatives yu bees. duñu renouveler bureau xanaa mënuñoo renouveler bureau. Mhm. xanaa mënuñoo jox au moins la paax peut-être. à la partie jeune. Mm -hmm. beaucoup plus spontanée. Mm -hmm. pour ñu régler yenn mbir yi parce que aujourd'hui on n'est pas dans le gouvernement boo xamante ne gouvernement wax la. gouvernement action la. te malheureusement par rapport ak li nga xamante ne moom mooy wàññite njëg lii. li tax ñi amuñu droit la ji mooy ne ñi fi nekkoon danoo nax ba sonn. ndax ñu ci ay njëkk yu ñu wàññi bu buñ leen annoncé leen yenn prix yi neexoon na leen moonte yi bu wàcc wàññi woon na fi dërëm wàññi woon na fi ñetti dërëm du lu bees pourquoi léegi la war a mën a choquer nit ñi parce que léegi lañu war a bëgg saisir occasion bu ne pour que aujourd'hui ñu war a mën a jeter des pics à ce nouveau gouvernement nañu leen ñaanal yàlla lii ñu décider mhm. di wàññi te njëkk yi mhm. ñu am ci ndam mhm. parce ndam li ndamu askan wi la. buñ dee waxante dëgg rek neexul ba neexul Basiru lu mu jéem a jéem a jéem a jéem a wàcce boppam niveau boo xamante ne dafa bëgg méngoog sénégalais yi. Basiru Diomaye Faye est <laughs> président de la République. Mhm. c'est pas lui qui c'est pas lui qui va aller wàcc ci marché bi naan dafay jëndi suukar ak ceeb. Mhm. ñun ñi nga xamante ne dëgg-dëgg ñoo yor suñu pañe ñun ñooy daw as tuut la ñu am. Mhm. te li nu am dañ cee war a dund du premier jusqu'au trente te mhm. weesu ko sax ñooñ ñii ñoo soxla wàññite gi mhm. donc na ci euh, ñi nga xamante ne ñooy opérateur économique yëpp jàpp na ci acteurs yi nga xamante ne ñoo ci bokkoon ñëpp jàpp kenn ku ci nekk jël ci sa responsabilité mhm. et ñu xam ne li premier acte acte yi ci topp xëy na amaana mooy gën a neex dans le temps dinañu mën a arriver à ce que niveau de vie wu bi mu wàcc par rapport ak li nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo ci jamono bi mm-hmm. mais pour moi le pari encore une fois reste l'application de ces mesures qui ont été prises aujourd'hui mm-hmm. ci date bi nu ko waxee mm-hmm. ñu defee ko noonu bu nu ko deful nag nanu xaar ay Spiderman nanu xaar ay Superman li ma lay wax nii du ay caaxaan. nanu xaar ay jet lii ak Jackie Chan man gouvernement bii ma gis. gisuma si benn jugee gouvernement wu caaxaan. lii comme film action. te ay xale yu ndaw ngay amal affaire descente mel ni ndax xam rek man Spiderman laa ko tuddee ah. Hmm. man def ndax li mu def bërki démb ci transport bi. Hmm. sénégalais yi farut ak moom sax dañu ko rafet. Hmm. ndax nag pend mënunoo nekk ci am dëkk boo xamante ne. daa am ay poignée nit yu ñu décidé noot. waaye yow suba boo xëy nañu kii cab dompat yow ñu yuuxu te sa yaram du daw te dëkk bi kenn mënu fee dëkkee perfusion saa su ne perfusion dafa jeex barke Sëriñ Bamba perfusion jeex na. dafa jeex jeex na perfusion moo jeex maanaam yow.